Senclic yéen ñi abonné gul abonné gaaw ak activé cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jàngin jëf Eh, jaara may ñu jaara jaara man damay jógee si metti rek sama coono ne su ma ñëwee sama kër naa noppalu du ma mën a noppalu ko ngay mel ni weñ nii nii rek di ratatari jaara boo koy woo yow kër gi kenn mënu fee noppalu jaara jaara sa booxul ma la yow jaara jaara lii lal la damay jógee ci mbedd ma ñëw sama coono ñëw tëdd fii nga mel ni weñ rek jaara jaara lii lan la jaara léegi aw mu droit woo sama doom ban droit woo sa doom booy woo sa doom doo jug dem fee woo jaara yow ban façon nit nga kenn xamul noo ko mën a soos nga kenn xamul noo ko noo ko mën a danimal nga jaara mais wax ma naan damay woo jaar damay sama cin lekk sama lekk <laughs> boo bëggee cin bi xale bi sëyul yow yaay sëy jugal dem xool sa cin bi ma sama cin bi maa ngi xaar ba eh, li may ban cëlin yow eh, man du ma sa morom Fanta sama xaalis ma la koy jox joxuma la pour nga jënd lii sa yëre yi nga xotti mel ni kuy rëbb mbott nii eh su jël lii laa nga defal li ne sa bopp su may wax ak yow nga di ma ton a na rek na nga fexe nag ba ceeb boobu fexeel bu ba mu saf xorom rek ñàkk jom ba bëgg dee waaw mais Baye Maxime non Baye hein bu fa demee nii baay. ah gis nga de paa bi moomu yónnoon te dama yàqante te xam nga paa bi nu mu mel. non à part loolu yow maa lay woo fan yii yëpp bàyyi jëloo sama appel loo la kóol. ay kóol bi paa bi boo ko récupéré xam nga paa bi mooy loolu daal mooy mooy jàmm ak ba ñuy toog uh-huh. ah, waaye yow sa père père nga xamante ne instant bi moo moo bëggoon jël sama woo fii. waaw li non dama laa ruus rek ak keroog mënoon naa yàq kaas foofu mais xama rek lu mu doon kilifa tamit mais paa bi tamit bu fekkee ci kër gi lay ne di tàngal bu génnee mel ni muus bàyyi loolu mooy lan ay jéegoon nag ci kàddu yi de mais sa père mooy loolu de bàyyi ah ah ay yéen la ko wan de yéen la ko wan boo bëggee léegi ma woo woo bi mu tegal la lépp mu leer mais à part ça nag ah yaa ngi doxal noonu la Fall bëgg naa de. jëm nii a ah, ma doon ah ok man ma doon dóori sax kon ñu ah. baaxaale yoon bi rek. Ah. fleur dama fii dama kër ah waaye lii njëngi lii lii ngénte am dëj soxna sa doxit rafet na macha allah yàlla na la cër seexlu mais jànk tur bi naka la. Fatou laa tudd. Fatou regarde-moi ça kër Zéli non. <laughs> merci. mais yàlla mën a bind. yàlla daa bind pare dama xalima gi. waaye tamit noo tudd papa. man maay Baye Moustapha. Baye ñëpp a ma xam. ndaw tur bu neex. Fatou riiji ma Fatou jëlbal naa la sama bopp àdduna ak hmm? yaa moom penku même soow. géej géej jéeri ji maa jël lépp jox la. tey nag ma walla ni kuy dóor mën kuy saaga. dafal nànk rek ma ñëw. xam nga lan laa ci bëgg nag. banaana kese neel benn neel ñaar neel ñett faatu lu la neex defal faatu xalam ma ah. riiti ma bu la neexee wutal guitare solo yow ñeme nga de eh faatu dama di mag yaa wax lii maa wax lii baax na dinaa la xaar faatu li ma la waxoon rek jaral nga ma mars kanaara ba siin ah billaahi jaral nga ma ko jébbalu naa ci yow àdduna ak yaa wax loolu yow moom penku moom soow jébbal la géej géej géeri yow ndekete kafoo. Fatou dama di mat de. li nga wax loolu laa lay defaral. baax na maa ngi lay xaar. doxal ma xool jëlal ma lii kel xeeti ans Fatou danaa ñëw de. waa jënk waa yii jënk dama naa la. kii kan la Fanta. waaw ah man de joo metti naa lislaam de am na gan waaye yow jànk lan moo la waral lii. jànk jeexle rek ci nag baa bi tamit baa bi mayu ñu jàmm juróom laa def sama déchiré yu baax xam nga rek comme nañ ko tàmm defee école waaye li mu ma waxul rek da koo fàtte kër gi kenn mënul am jàmm su wàccee rek suñu xef lay dog ñu ñëpp kenn du nooy. sa papa mbaa du sa papa nekkul mooy paa yoo nga xamante dañoo tàng saa bay bëgga de Diop laa muy yow waaye yow sa papa sax yow nan la tudd ak fan la dëkk yow. muy Baye muy Baye président jàq bi xamoo ko. ay aduna ngi nopp dalloo dina kookoy sa papa nga ne. sa papa boobu de ngay wax noonu man maa taseeg moom léegi léegi koñ bee. sa papa di ma doxaa déedéet loolu mun ma kaa gëm lu tax mun sa papa laa la wax moo ma doxaan jox ma koppar bu bees tak xaalis bu bari tey dafa war a reer ci sama kër loolu man maa la ko wax déedéet jànk loolu man mun ma kaa gëm sama papa di ci diine diine su fekkee dafa toog seen xef yi sonal sa yaay ak sa maggu góor sa papa du day reer si tey lenn rek laa bëgg nga defaral ma jànk ngir yàlla ak yonent su ma la woowee ñëwal wuy si ma sa papa tey dinaa ko woon li nga xamante ni tey dootul yëngootu seen biir kër du ŋaaŋ loo bëgg a def di ko def jànk. yow jànk lu sama yaay mënul lijjanti yow yaa koy lijjanti. man mii maa koy lijjanti xanaa danga ma fàtte loolu man maa la ko wax. lu gaynde la ci biir kër gi bu génnee ci bi ci mel ni loolu maa koy faj nga ci. di nga ñëw man de dama leen bëgg dimbali rek te yàlla tax man moom genre paa yi rek la laay defanteel man ku réglewul këram moom boo génnee ci biti di jaay moom kii man nga fi fekk maa ngi lay xaar dégg nga ok. kii maa ngi koy wax suba fexe ba jot maa envoyé ko bakkaar ba. waaw yaay koy waxtaan nii si whatsapp bi. sa tante de laay woo di bi dee mënu ma koo jot ma ko xaaral ah, ma envoyé ko bakkaar ah, waaye. waaw yaay yow dama la soxla woon sax. mbaa man sax yéen ñii dama leen soxla yaa ak Fanta. jaamu la yow sa lem bi ci soo ba léegi mënoo fexe ba pare. yére yu bari. amoo njëriñ ay fant dimbali ma nga yërëm ma ngir yàlla. gis na li nga sol. doole ma yërëm seen papa moo fi fekkee lu ne la ma yekkati. waaw bi nekk fi balaa mu ñëw naa ko sumb. Ah, mais yaay lu may yëg ci koñ bi nii est-ce que yaa ngi koy yëg. sama xarit bi keroog sama papa bi may yëndu noonu fële ma dajeeg sama xarit bi ma naan ma sama papa day doxaan. ay Assane. yow boo ñàkkee fayda ba nga génn ci mbedd mi ñu naan la sa baay day doxaan daa fekk yow nga ñàkk fayda yow sa xarit yooyu di la naan sa papa day doxaan ku leen fekk ñu toog ñu ne sa baay day doxaan neex xam nga la moo tax fii pour ngeen toog pour ma yedd gën a leen ngeen am jom am la seeni bopp bañ di déglu waxu mbedd mi. li seen baay seen baay la seen papa da ngeen koy jox cër la mu nekkee ca mbedd ma seen yoon new ci. mais yaay sa tombe juste man bëggoon naa la ko xaw ma nan laa koy yoxee doo xam noo ma koy waxee. faatu moom bàyyam buñ ku ko fekkoon mu toog na ko sa baay dañ day doxaan dina ko neex yéen ngir yàlla mun leen am fulaak fayda te ngeen yërëm ma tuuti. mais yaay man sama xarit ma àndal Modou mu ne sama papa day doxaan gelam. eh wuy dem mayoon na ko fii trente mille francs Assane te ñun mënuñu am jàmm si biir kër yi. Assane Fanta seen papa bu leen mayee jàmm ci kër gi yéen la. su leen ñàkkee may jàmm ci kër gi yéen la yéen leen warloo si biir kër gi def leen ko te ngeen bañ a lijjanti seen papa seen papa lu muy def si mbedd mi seen yoon nekku ci ndax nii ngeen mel nii tant que yéen ngay continuer du leen am jàmm yéen neen ak seen papa ci kër gi seen papa ne naa lu mu mënti mel ci biir kër gi yéen moom moo xam mbëggum jëmm la mais la leen nit ñi di wax ci mbedd ma bu leen ko lijjante seen baay seen baay la est-ce que yéen a may dégg. Ah, moom yaa man man bëre loolu moom man damay génn kër gi moom yaa génn kër gi ah, boo génn kër gi da daa fekk yërmatoo sa yaay yow moom aw leen lu may wax ak yow affaire yi ñëw di nettali yooyu laay bañ a dégg te damaa bëgg nga lagg dem yeggali si yër yi ngay lem ci biir te lii nga sol ni danga ko simi balaa sa papa di ñëw oh, yéen da ngeen a ñàkk jom yërëmu leen ma fenn chaque jour ngeen may seen bàyyi lu ma xasee asalaamualeykum. maaleykum salaam. kon sëñ ah, Bada. Bada Bada Bada Bada Bada Bada. Bada Bada Bada bisimilah bisimilah yéen si. Bada bisimilah. Bada Bada Bada Bada. Bada naka mu yaram. ah sant bu baax a baax ñaa la gis de. faal faal naka ite jamono yi. sant bu baax a baax naka mu. sant gëj ñaa la gis trop. ah ñu si jàmm gu doy rek. ah Bada gëj ñaa la gis. waaw ah, loolu yëpp dafa fi andiwul. ah lu waral lool lu waral lool sëñ Bada. jàq ji moom fi andi. Mm-hmm. parce que kat. Mm-hmm. boo seetloo. Mhm. barki démb boo jaay lañ ñu andil facture courant loolu dëgg la. te ba léegi fayaguñ ko. te du yoon de. andil lañu fi bon. du yoon beneen bi toog. Mhm. miiru jàkka yi baaxul. dëgg la. tapi bi baaxul. loolu dëgg la te kenn jàppaleetul kenn. ah jamono bii bopp sa bopp la léegi. ma xam nag li fi sës mooy. Mhm. suñu kees gi. yow daa mel ni si wàllu kees laa doon wax lii sànq yàlla yàlla def na ñëw fii. war nañoo xam kat li si nekk. mooy yoon sax mooy yoon. mooy yoon ndaxte kees gi mhm. man sama xel mhm. daa am ñaaw njott mhm. am dérégardation boo xam ne maa ngi koy gis si leer bi dëgg la Baye Moustapha Baye Moustapha waaw fan yii doxaan gu métti la jël ah ana sañul lool Baye ba man bu ma demee réflexion ba dem si la table kees gi lay doxaan yi te du yoon Baye Moustapha doon kilifa di doxaan kon da kees gi lay doxaanee de Baye Moustapha loolu su ko defee def lu ñàkk taalibe waaye ah, man musul am taalibe ah, man dama doon kii nii rek waaye man ragalu ma ko musul am taalibe wax loolu sëñ Bada man nag li ma xalaat mooy ah, loo xalaat ñu xam kees ñaata fi nekk loolu sax mooy yoon léegi mhm. comme yaay imaam dëgg la te yaa ñu jiite dëgg la da ngay dem si Baye Moustapha dëgg la nga xam kees gi ñaata fa man moom man ba dama doon imaam boo xam man lu may jugloo du yomb léegi yow dama la yebal si bàyyi Moussa kon bii di nga jub na dem fa ànd ak moom. kat nañ jéem a lijjanti kees bi. man yow. imaam man mënumaa dem. ah ba léegi moom man mii di imaam ne damay wax le ne teggi sama wax di jël say wax. ah ah ah question de vie. y' a pas de imaam ni de négociation imaam vraiment la nga lijjanti kees bi. léegi yow léegi yow yow loo bëgg léegi yow. nga dem ba si kër Baye Moussa Fall nga toog ak moom xam kees ñaata si nekk mu fayaale facture bi. nga ñëw fekk ma déedéet man instant yi dafa amoon fu ma naroon dem yi léegi ma dama lay yebal foofu na dem foofu nañ jéem a lijjanti kees bi ñaataa fa nekk ah. léegi sax yaay imaam. Uh-huh. maay bi laa uh-huh. nañu ànd ñoom ñëpp dem. kon yow kon yow noonu noonu ko gisee. nañu ànd mbagg ak mbagg tànk tànk suivi trace ba si kër Baye Moustapha ñu dugg fa. ayca kon bisimilah bisimilah même tuuti ma dugg changé wu. ayca génn ñëwaat ñu ànd dem. tuuti. waaye Moustapha moom ba nañ fa ànd mag yow mag ak mbagg tànk ak tànk wala nga dem yow kase kees gi moom dinañ xam ñaataa si nekk lii du yoon te du dëgg du yoon jàpp ñu kees gi di ko doxaanee nii rek man ragalu ma ko de te dama doon ji ji ñàtt nii rek waaye ragalu ma ma ko moom ban seen la jàpp nii Maram sañ Bada man kañ laa yow na ci teg baat kan ma imaam si jàq man maa imaam kan moo jiite si jàq ji man man maa jiite jiitul wante yow maa fal kan sañ Bada tegul si yoon bi sañ Bada na bàyyi waxu bëri bi salaamaaleykum ah, ah, barikalla sa baay moom mi ngi ah, mi ngi ci kaw ci kaw laa ci kaw ah salaamaaleykum. Baye Tafa. ah yow it nag en tant que kilifa. di nàppee fu yéen yaa ngi jël air gi de. waaw damaa andi bay rek <laughs> eh ñaar laay waxal fettasu yi ngeen ni fettasu seen sama ginnaaw nii di ma tànkal laa bëgg mu daal jóoba xaw ma kum ci mënti doon leen yëkkati ba ñëw sama biir kër gii laa bëgg ngeen wax lan la waa dëgg la ñun man du ma dox si caaxaan en tant que imam moom si jub dox ak si fulla fayda moo tax ma ànd sama kii ma mën a ko nañ dem seeti Baye Tafa maa ngi la moon taxu ñëw si affaire jàkka ji hmm. jàkka ji dangay noddatuñu julleetuñu am nañu bon de coupure fii am nañ ko moo tax may ñëw ñu laaj ci wàllum kees bi la moo si nekk ñu jéem a xool na la ñuy fayee affaire yi. exactement. ah sëñ Bara. waaw lu wax dëgg loolu dëgg. loolooy dëgg. moo tax nag kees gi lañ bëgg a xam li ci nekk. lu mu ñu mën a fay lii nga xam ni mooy courant bi ba pare defar si miir yeeg ñoom karo yeeg ñoom seen jàkka ji dara baaxatu fi. kon yéen daal maanaam da ngeen def seen réunion en deux personnes waxtaan li ngeen di waxtaane mais nag léegi nañ dem affronté ji Moustapha. affronté wu ñu dañ kii rek. da ngeen may affronté kenn affronté wu la da may affronté. loo affronté soo waxee affronté daa mel ni yow. ngir buñ la ngir yow dañ la lii affronté wu ñu la. da ngeen maa affronté. ah bu barki dem man ak yéen julli la moo tax waxu leen ma ko. waaw ah, xam nga tamit moo tax moo tax. moo tax rek. bo bon de coupure est-ce que bu nga demee ba am bon de coupure facture bi mu ñëwee waxu leen ma ko. wax naa ko Bada mu ñëw wax la ko ana Bada moo la ko waxul. ah wax naa ko jotoo bon de coupure yow bu leen ma fontoo lenn laa leen xamal nag damaa bëgg ngeen jël seen ñaar seen dàll yi te romb ma nii man dinaa jël sama responsable dam fay courant bi li jëm ca kees ba nag yéen ñaar ñi bëggatuma kenn di ko tudd xaalis ba mu nga fa mu war a ne. kees ba moom danañ xam la ca nekk nag. balaa ñu fay jugee danañ xam la ca nekk. mooy yoon waaw mooy yoon. kees ba moom ba léegi mbir mi ba bëccëgu. boobu ba léegi nag maa ngi wax. di maslaa ak yéen. non question de maslaa sax xam kay kay moo fi nekk. waaw parce que yow ci say mbir waaw. ci mbir lu ñuy wax ah tafaat sëñ tafa tafa tafa. tafa gars yi nañuy mooy réunion ba. mooy réunion ma kon kon da ngeen maa réunion ba pare mooy li may wax. foo ñu li jënd ko daal dafa bu ma tàngal mosoo ma gisee nii nag. Eh, xam ngeen lan la yéen ñaar ñi mën ngeen a sama kër wala mën leen génn sama kër. waaw ñu ngi génn daal ay xam ne fi ne. Eh, jaaral ni yow ngëj suñu soxna dama la ragal nag. maa ngi xaar ba kenn ñaari fii naan maay kees yéen du ngeen laal tus kees ba maa koy jël di ko doxalee nu ma neexe di ci di ci ay profondeur ay longue paas nga naan may nii maa ngi xaar ba kenn ñëw di fi naan may kees vous yéen a ngi si jàmm fii la Fatou dëkk ana mi ngi nga ma kaa wool entrez. man. kan ah, xaw ma ko de benn paa ma yegg na ma sa papa moom mooy ñëw nga lu ñuy def. teel sa portable kañ la ma lakk la fi ay Moustapha Yes, yes. Oh. Now. Ah. kii di sama chéri. oh. nii daal nga def. xoolal ma lii rek. gis nga li ma la defaral. ma ma maa dëkk ci lii. kaay toog. yaram daw na yax des. yegg xoolal ma xoolal ma xoolal ma yii xeetu décor. lépp yaay borom. xoolal yii. lii yëpp yaay borom. ah. ni mu la waxoon rek. 65 ans de mariage musuma gis lii. yaa wax lii. billaahi musuma gis lii. doo ko defati. Oh. la moom. toogal nii ay yow li nga sañ si lii la la nii ah déet kay lan la. yaram moo daw sama yaram moo daw. xam naa da ngaa kontaan de ah. xoolal ma yii ma yii xeet. lépp yaa ko ma yii xeet xoolal ma yii. yow lii tuuti na lii rek lii dafa tuuti lii dafa bu ma yërëm waay. yërëm bu ma yërëm. yow man li ma li ma li ma fas dafa teg yow lu ndaw lii kese. laa ilaha illallah. yow loo dundul woon ci sa mariage yëpp man maa la koy dunduloo ba nga dund neen ma wax. dégg naa la gëm nga. billaahi nii nga def. nii de laa def nii nga ma teeroo. soulagé Fatou daagul woy àdduna tukki na. loo ci wax. bég kontaan nga kontaan. Ah. dee naa fépp. maa gëm. instant yi sama boule de nerf ñooy taxaw. yaa wax loolu. billaahi sama boule de nerf yi ñu ngi taxaw. xam naa lépp ay xasan. Fatou Fatou woo ko ma waaye te bu ma yërëm. Fallou gàcce ma damaa bëgg ngay xosi ma. man rek ah bëgg nga xosi ma ay. xoolal tey moom maag yow fii tey jii tey dara du yomb. Fatou man man gone ma dëkk waaye magamay daam. man rek man rek ci xale Fatou man feuille falaam laay joxe. gis nga militaire boobu noonu gàttu zoo. waaw maa ko gën a soxo yaa wax loolu. billahi maa ko gën a soxo ñeme nga li ngay wax. déggul ma foo foo baatere ma ko. pusil ni tuuti. foo baatere ma ko. pusil ni rek man sa yii rek ma koy def. xoolal ma yii. xoolal ma yii. yëpp yaay yaay borom de yaa ko moom. xoolal ma yii. yaa ko moom de. lii xoolal ma yii. loo wax ci lii. wa eh, de Fatou nag de eh, Fatou. Eh. ah ko wax. ah mais de de nag del ta ah del nag. Ah, man bëgguma ko may bett del tàggoo. aw ma sens interdit sa yaram ji. del tàggoo. ah nag del tàggoo. defal nii tegal nii sa bopp bi ah yow la nii looy daw rek. yeegam yow Fatou Diop say say nga. Hmm, da ngay laajte pare gu de lii rek daw sama yaram nee naa la ma ñii itam sama yaram ma ko allergie man Fatou. loolu laa bëgg damaa bëgg luy daw sa yaram ba nga yëngatu ba ma yëg ne yaa ngi yëngatu. si nii saa yi damaa yëngu fépp Fatou. yaa wax sa tur dama ko wuyoo fu mu nekk nii jël ma rek faatu naa bu yàgg dañ ma jël rek yóbbu Margo. jébbalu naa ci yow àdduna ak àllaaxira xoolal ma lii xoolal ma lii man fu ma jëm man fu ma jëm am na ndoxam yee ma doole kii ñi meew ma ko faatu ma doole kii ñi meew ma ko ma denc ko bu suba xam nga man damaa tàmbul bëree léwatoo man damay ñëw rek attaqué loolu rek laa bëgg ñëw rek attaqué ah déedéet loolu kenn du ko def nag loolu amatul loolu billaahi loolu laa bëgg loolu mairie ya ko tis dama di man li watoo moom laa mënul dama bëgg ñëw rek xëpp ci cere kese kese xam nga nag lan laa bëgg waaw man xam naa ni moom yow sa tànk bi day dem yaa ngi fàttaliku bu ñuy tesee maag yow sa sa bi nga ma dóoroon déet déet ah. dëgg la sax ay jamono damay fecc waaye keroog boobu noonu ba may dox laa fakasol fu mu nekk nii sama zone bi daa am problème am na yenn gestes yoo xam ne dama ko dul mën yow xanaa man nekkatuma sama di ko ma loo bëgg yàlla nay jàmm. ah kon yaa ko wax kay kon jeex na. waaye nag destin ak ndogalu yàlla. xool fi kenn nekk fi maa ngi yow kese fi nekk damaa bëgg danga feccal ma sama xol bi la ci néeg la ñu nekk maa ngi yow kenn nekk. xam naa ni man moom yaa may def loolu ne. ah jeex na yaa may def loolu ne. maa sañ kenn sañu ko. ah dong maa sañ wàccal. Ah, yi moom yu mut si fecc mi. laa la yee koy neexal de lii lii rek koy neexal wàccal. damay xool fekkee sa ndigg bi baax na waa Thiel. ndigg lu baax kay amoon na fenn fuñ ko mënoon a essayé furul ci fecc. yii lii ci la bokk dindi ma garam boobu bi. garam bi bu deñ. waaw. boo dindi ma garam man loolu yaa ma koy def loo. daa def ko nii rek nga teg. maa ngi kese lu ne yaa ma koy def loo. ana sama mbaxana ma sax man. xam naa ne yow da ngaa ñeme. déedéet lu ne yaa ma koy ba sax dañ yëguma ko ndax maa ngi si woon si yeneen i monde. di faatu nag faatu nag faatu bëgg naa la lool waaye dama di mag faatu yéen xale yi léegi da ngeen a saay-saay faatu ku ma filmé laay bañ faatu. kan moo lay filmé fii waral gis nga fii dégg lii loo ci bëgg. faatu ma takkal la lii. faatu man kilifa laa ci faatu. Fatou may président jàkk ji jógal yow tamit nag kenn nekk fi jógal xoolal yaa ma waxoon li ma bëgg da nga koy def jógal nag waaw li ma bëgg kay li da koy def waaye ay takki becco nag en tant que président jumaa ji lii tamit ci la bokk yow tamit nag fecc gi dafay neexal jógal nag jógal bul wax jógal mel ni kuy kàbbar daal yow kay yëkkati sa yoon rek am defal ko ni li na defaat eh, xam naa ne yow sa digg bi ci boppam day def jaaraama yi xam ne ñoo may def loolu ne ah ay waa li la nii. laa ilaaha illallah. waaw lii moom bis bu génnee ci réew mi moom mooy coow topp na ma fa fa wa fa wa fa wa. tey eh, du génn fenn maa ngi yow kese fi nekk kan moo koy génne ah. maa bëgg a fecc loolu nii rek Fatou yow it. feccal rek. ah feccal rek yow tamit nag. ah man dama di kilifa ci dëkk bi tamit. Ah, Fatou ah ma bëgg rek ngay def. waaw ah, dëgg la ah, dëgg la. maa ngi yow gis fi nekk di nekk fekk aywa wallaahi lii yëpp ci teraanga. jar noo xam nag ndax fecc naa fi lu jar teraanga. lu jar teraanga si boppam fecc naa ko fi. waaye nag kilifa kenn du ko fecc loo faatu. gis nga banaana bi ma wax faatu man banaana yi gis naa ko. teraanga jërëjëf. banaana ak mango yëpp laa la jënd. jërëjëf. yow li nga fecc fii tey waaw yii mën naa dem. déedéet lu tax dem. faatu dama di mag. kenn nekk fi maa yow kese fi. faatu nit xamoo fan lay ñëwee. eh da ngay jël pause dangay ngay lekk après nga feccaat. baax na kon. yow xanaa waxoon li ma bëgg rek ngay def. mango gi xanaa puut la jógee. mango bi dana. mango bi dana banana gi ñu indil ma ko. yow xam naa ne ku bëgg banana nga. ba ah. ma doon. kii moom leer na ma ne dangaa dem ba Côte d'Ivoire commandé ko. Ah. wala ma lii rek. dolli ci banaana gi dolli ci banaana gi ndox mi dina ñëw dolli ci banaana gi na banaana gi ñëw. Ah, yow de woon nga ma dangaa bëgg banaana li ma fecc rëy. loolu de dëgg la moom. xoolal ma lii rek. léegi xaaral ma jox la ndox. Hmm? Ah, nga wàccee tuuti. c'est que fecc mi laay fecc ak temps fecc démb laa fecc. fecc démb. toj nga fi. bilaay toj nga fi rek. yow rek. léegi xaaral ñu tegaat ko nii. xam nga ne yii yii dessert yi dessert yu ndaw yi ñuy xeeb te xamuñ ne yii day dëgëral amour. day dëgëral amour. xoola dessert maam jaara dessert mu indil ma màdd tegal ma ko màdd màdd añ ba pare mu defar ñambaanu màdd mel ni kuy jaxte mel ni man damay jaxte muy yow ah loolu de kenn du ko jox nii lu ma ci xam góor ak màdd ak màdd faatu yàlla yàlla sa fan gudd faatu yaa wax lii billaahi faatu biisaatal ma faatu damaa kontaan ci yow ah. faatu biisal faatu biisal billaahi du la may dara